góor ñu leen di di la ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen delloo ziar. tur bi nan la. waaw Galaye Diack laa tudd. waaw ki góor gi dañoo gis ne maire bi dañoo bëgg a ñëw am ay uh, place yoo xam ne dañ ko bëgg a jël bokk ñu pour ñu bokk ko am ci ñoo xam ne dañoo bëgg a jël seen place yi tuxal ko ñoo doon laaj tey nag nga gisee loolu. waaw mën naa li ci sama xalaat. place bi man maa ngi fi sënc 84 laa fi sënc 84 laa fi nekk boobu tam fii yëpp pàcc yu bari benn nekku fi àll la 84 laa fi nekk bi fi nekkee 84 ak léegi itam place yu si bare ci sama kanam la ñu juddoo am na si ñoo xam ne sax maa xelal yoon wa ñuy jaar ba jot seen place léegi nag ñu ni dañoo bëgg a yëkkatee àngal ba bu ñu yëkkatee àngal ba nag ña ñi fay jëlee place yu yaatu yi place bu di ñu dañ koy dagg ñun nag loolu d'accord ci tey d'accord ci la. dañuy dagg place yi. waaw yow maanaam ku ci sa place mat ay 5 mètres jëm wala 7 mètres yooyu ñu génnee ci 2 mètres am ku ñu fa xejal loolu la ñu wax da nga maam te loolu nag loolu la ñu d'accordul mënuñu ko tey mënu parce que koo xam ne 7 mètres yi nga yor sax say bagages yi biti la dama jël gardien ba bagage yenn bagages yi fii lay fanaan ci biti damay fay gardiennage. xëyul ci place bi kon ku sama place naan lañ koy wàññee ah loolu daal man d'accord ma ci te d'accord te ñun ñëpp ànd nag kàddu bi may wax waxuma ko ci sama tur waaw dama ko wax ci turu mbooloo mi waaw te bu ngeen jógee fii ñi ngeen fi jot gis laaj leen leen daañu leen wax lii mu leen wax waaw d'accord uñ ci tey d'accord uñ ci ëllëg te maire ci boppam moom moo nu waxoon ni man du ma yëkkati kenn ndax fii laa dëkk ñaanu ma yàlla ëllëg may génne di ci tajee kenn di am moom xaar ma yàlla. léegi moom da jékki bëgg a def loolu est nekkul amu ñoo xam ne dañ koy convaincre. léegi nag maire ci boppam it ñëwul. ñëwul de ay ndaw ñoo fii ñëw ni maire leen yónni waaw. gëstu ngeen loolu ba xam. waaw gëstu nañu loolu waaye maire boo ko wooyee bu ñaan nañ ko ñaari yoon rendez-vous pour mu recevoir ñu waaye no no no no dafa ne amul jot ndaw yooyu nag bu ñu ñëwee ñoom turu maire la ñuy indi ni maire ñoo nu yebal waaw moo tax nag affaire bi d'accord wuñ ci ah commandant mbeer keroog ba mu fi ñëwee commandant ñëw na ba fii ànd ak chemis ak ndaraan yi waaye ñoom ba ñu ñëwee ba leen waxee lañ leen wax commandant ci boppam moo nu ñaanal sax rendez nu dem gisee commissaire keroog bi ñu dem ci commissaire juróom-ñaar lañu ni pour la la pour yëkkati affaire la wala. waaw ah, dafa ñu de ñoom dañu àndoon dañu ndaw yooyu ni maire maire leen yebal ñu ànd ñoom ñu dikk ni léegi dañuy dindi place yi waaye ñoom ba ñu ñoom ñoom ñu commandant su suma commandant ba ku poste la. ba mu laajee kayit woo xam ne woo woo wane ni kii ñooy ci d'accord gisul kayit la dellu gannaaw moom daani waaw mbir mu ne dañ koy tënk ci kayit. mais mais mais est-ce que yéen yéen daan fay juuti wala affaire yi. ñoo ngi fay juuti walaabal dañuy fay juuti walaabal quatre weer weer bu ne nga fay quatre mille cinq cent carte la ñuy wut di ko fayee ji trésor li leen waa ndaw yi mairie yi ñooy ñëw fii yenn ñi waaw ku mel ni man man de trésor laa daan fayee ji. mais comme yéen nga fay juuti di fay euh, euh, maam di fay gardien est-ce que du du yoon ngeen def délégation dem ci préfet bi wala ci maire wax leen yéen si euh, seen. situation dem nañ dem nañ ci sous bi sous bi. jox nañu sax carte visite am carte visite am a ngi nii sama poos. lan la leen wax moom. dégg nga moom moom li mu ñu wax dem leen toog ba ma gis euh, maire bi dinaa waxtaan ak maire ah bu ñu waxtaanee ba pare daañu leen woo lu ñu lu ñuy waxtaanee lu ñu tënk ci kayit daañu leen woo waxtaan ci boobaa yéen boobaak léegi itam noo ngi toog di leen déglu. waa wa wa maire woote moom sous-préfet woogunu commissaire bi itam joxoon nu kayit jox nu numéro moom itam. numéro commissaire bi mi ngi nii si man ma denc waaw ni woon lu nu fa jëlee buñ toogee ba waxtaan daañu leen woo loolu la ñu waxoon ba léegi ñoom yàlla dogal na woogu ñunu ak ah, xëy na julli gi ñu jógee tax boobaag léegi it parce que altine la ñuy reprendre déggaguñu daal benn loo xam ne daal lu ñu mën lu ñu lu ñu mën a sukkandiku la wax dëgg yàlla léegi yow instant lan nga mën a wax état bi ak tamit say mbokk yi nekk fi di liggéey yàgg fi di daan seen doole léegi lan la ngeen wax pour moom mun mën cee jàpp ko li mën a wax daal mooy nañ na fi bàyyi nu toog liggéey sàccunu fenunu njaaloowunu li nu am dañu koy dundale suñu njaboot te noo bokkul moom ci réew mi te comme comme comme président dafa bañ ba dafa dafa débloqué ay ay ay génnee ko pour ndaw ñi mën a liggéey te ay ndaw rek ñoo fi nekk. te ñun ñi fi nekk li ñuy liggéey suñuy doole suñu suñuy njaboot lañ koy dundalee ah nañ ñu bàyyi nu liggéey lii daal la ñu sant man daal te loolu la ñu bëgg it loolu ñaan waaw ku dimbali daal ku dimbali daal nañ ñu fi bàyyi nu toog liggéey ndax li fiy liggéey carte wuñu ko naane wuñu ko sàngara sunu njaboot lañ ki dimbali ak jullit bi yàlla bu ci sa wërsëg nekk nga lekk ci waaw lii daal la moom moom loolu la ñu bëgg bëgguñu leneen. ñi fi nekk ñëppit garab benn kàddu bii ñoom laa ko waxal ñun ñëpp ñoo maas ci kàddu boobu ñu bàyyi nu suñu place nu liggéey ndax maire sax mas nañoo wax ni dinaa leen wax ñu ngeen ngeen ko ngeen gën a organiser waat ba defaraat place yi pour mbedd mi ngeen ko yaatal loolu moom maire mas nañu ko wax ba muy soog folu falu waxoon na loolu waxoon nañu ko ni du ma du ma yëkkati kenn waaye dama bëgg ngeen orga ngeen organiser ko ah ba mbedd mi ngeen bàyyi mbedd mi loolu itam maire génn na ci gémmiñu maire dugg sama nopp bi mais tamit ñoom da leen la bëgg jël jël leen mais est ce que ñoom bu leen jëlee wax na leen di leen teg ci benn condition boo xam ne tey jii ngeen fi mën a nekk pour en cas bu leen fi jël man de dañ lay jël wàññi sa place daal lañ ma wax waaw ñee nag ñi nga xam ne ñoom dañ leen fay jëlee nag dégg naa ñu ni wax nañu leen nii leen a ah, am na fu ñu leen bëgg jox waaye nangam naa waaye waaye dara leeru ca parce que am na fu ñu la bëgg a jox ba bëgg laa yëkkati joxuñu law kayit wanuñu la place ba kooku dañu lay nax rek kooku dañu lay nax rek parce que bu wolof Njaay dafa ne ku la ku la reer da lay jox ndékki. daal yéen loolu dalul seen xel. dalul suñu xel parce que tënkuñu ko ci kayit joxuñu la kayit ah béréb sangam laa la yóbbu kay danga naan kaay béréb baa ngi nii kaay leen xool ko kayit yaa ngi nii ma defal kayit jox la waaye dañ leen yóbbu béréb sangam te biir bi amul kayit ah? xanaa ay waxi kese bu ëllëgee bu la bu moom bu jotee li bu bu jotee li mu bëgg bu ëllëgee su ko ta fee lay taxaw ah. waaw non bu loolu gars yi wax moom dëgg la parce que waa maire yi dafa ne dañ ne yenn borom place yu mag yi dañ koy wàññi pour def ko ay place yu ndaw mais ñun am place bu ndaw arrangé wuñu waaw parce que boo xoolee salle de peinture ak ni muy tollu fa muy aéré te su la bëggee jox place bu ndaw foo xam ne oto xaju fa waaye loolu mooy loolu mooy arrêté leen liggéey bi dem leen wuti feneen. mais comme quoi nag ñun dañoo waxoon ci côté boobu ba loolu féete boor mais dañu xëy benn jour rek gars yi indi fi seen i ndara nag affaire yi gars yi dañuy dañuy démolir affaire yi. dañuy dindi waaw mais après dañoo mujjee opposé wu. parce que tamit saa mënuñu ramasser bagage yu oto ay oto yu jàmbur ay alali jàmbur teg ko fii nga xëy un bon jour rek indi fii euh, naraan ne da ngay démolir affaire yi. ñoom est-ce que mosuñu leen koo wax benn dañoo xëy benn doo ñëw wala yàgg na leen wax dinañ fi ñëw wala. joxoon nañ ñu sommation mais sommation bu ñuy jox pour ñu jóge fii dafu euh, xam nga tey li gën a neex mooy nit ki nga ne da nga fiy jóge ba sàngam mais yow sommation une semaine bu ñu la ne mardi da nga fiy jógee bagage yi yow amoo foo foo dugal ay oto du toll ni ay oto jàmbur foo ko yóbbu. depuis kañ nga nekk. non fii yàgg naa fi parce que fii yaakaar naa man su ma juumul depuis 2002 ba léegi maa ngi fi depuis 2002 ba léegi maa ngi fi garage bi fële la ñu ko nekk après ñu toxal ñu andi ñu fi kon nag suñu demee ba ñuy yëkkati dañuy am fu ñu maanaam dañuy may ñu upp fu ñu nekk pour mën faa pour mën faa installé. dañoo bëgg a ñëree yëkkati leen te wax ñu leen bu leen ci yëkkati dinañ am fenn foo xam ne dinañ leen fa teg. joxee nit këyit exemple une semaine nga jox nit ki tey këyit ne ko mari danga nga fi jógee mais mardi bu fekkente ne yow fii ak mardi amuloo foo jëm lan ngay def place yi ñu wax ne dañ koy wàññi dig dig digal yi. pour lu ñu fi bokk mais xajuñu fa. lan ngay wax état bi. et puis maanaam état bi li ma leen di wax mooy ñoom li ñu xalaata a def fii loolu moo fi xajut lan lañ fa war a def état civil ñaata état civil ñoo fi am bari na et puis fu ñu ko mën a def ak bayal yu bari yi mais fu mën a nekk bari na mais daal ñun ouvrier daal ñoo amul ñoo amul maam quoi ñun ci dëkk bi ñun ouvrier ñun amuñu maam ñun bokkuñu si dara boolewuñu si dara. kuy dóor ci ñun ngay tàmbale kuy saaga ci ñun ngay tàmbale te ñun ba sawaay ñun ñun amuñu maam ñun moom sawaay duñu yuuxu duñu kii mais nag tey dañoo jéngu parce que tamit ay alali jàmbur ñun bu mu ci jogee fu ñu jëm nañu bàyyi ñu wut bu ñu amee fu ñu ne xayrul bu fekkee ñoom amuñu solution bu fuñ mën a ne fii rek lañu gis mais nañ ñu may ñun ñu ñu wut fu ñu ne bu ñu amee fu ñu ne ñu ñëw jël lu leen neex ñu def. waaw loolu moom da man rafetlu wu ma ko quoi. parce que tamit lu suñu patron bi wax sànq rek loolu laa lay mën a la dëggalaatal parce que soo xoolee 2002 ba léegi yàgg na man mi di wax ak yow damaa bàyyi école rek ñëw fii nii ba fi ni may wax ak yow maa ngi soxna ak ñaari doom kon xam nga ni fii kon ñun yàgg nañ fi xam nga suñu xëyee xëyee rek bëgg ñoo yëkkati fii nii xam nga naan ñu ay dañ fiy def ay état civil ak ay nangam-nangam war nañ nañ xool ñoom li ñuy defaat lan la xam nga fii bu dul dara dara dara. ay alalu jàmbur ñoo fi te ñun ay ndaw lañ suñ neexoon ñu dem defi leneen xam nga amaana ñi kay def xam nga ëppuñu ñu ëppuñu du fin bi du fit bi du sañ-sañ bi mais amaana suñu jom ak bëgg a teral suñuy wayjur moo tax ñu toog fii nii di fi daan suñuy doole suñuy juróom ak suñuy ñaar fukk xam nga fu may wax ak yow kon ñoom nañ xool lu ñuy defaat lan la su nekkee dañoo bëgg a jàppale jeunes yi pour ñu liggéey nañ xoolaat loolu xam nga sama patron bi tamit lu mu wax tamit moom loolu rek laay dëggal ku jug rek na ouvrier nangam ouvrier nangam sa doom bu bàyyee école nga indi si ouvrier yi xam nga ku bëggal dëng wala dara sax nga indi ouvrier ñu jubbanti la man xoolal ba ma nekkee xale dëkk gunaas tey suñ ma bàyyi woon heure bii nii kenn xamul lan laay doon ne dañ maa téye teeta ma ci ouvrier yi xam ba tey jii nii mooy may jël xale di leen defar waaw nañ xool ñoom lu ñuy defaat lan la mooy waaw loolu rek laa ci amoon nag lu may wax tamit en plus tamit bañ indee keroog tamit seen euh, caterpillar bi la xaw ma garawaay lañ ko waxoon la ñuy tibb fii ay oto ñoo fi ne xam nga man awma lu ma fayee oto suñ jëlee oto jàmbur yi di ko yàq di ko sagage kon nañ xool lu ñuy def garawaay ñëw di indi waa ji naan ko ay garawaay lañuy ñuy tibb te fii ay oto jàmbur yoo xam ne ay 5 millions lay jar ak nangam nangam nañ lu ñuy def bu baax a booy wax tey état bi ban message ngeen di lancé. waaw li ma leen di mooy que ni ñoom waaw xam nañ dimbali ouvrier yi loolu laa leen wax nañ jàppale ouvrier yi buñ jël ouvrier yi rek bëgg leen def benn yaafus di sànni rek ñuy dem xam nga loolu laa leen di lancé ñu xam ne ñun ay ndaw lañ liggéey rek moo ñu ñor sàcc ñu fenn ñu tuxuñu liggéey képp moo ñu ñor voilà. waaw loolu boo laayee laajee dinaa ci sawar a tontu ndax boo xoolee barab bi ni mu mel nii peinture yi nekk fi soudeur yi nekk fi boo xoolee ni mu mel nii rek nga xam ne ñun bi nekk débutant ci lañ jàng métier place bi lañ jàngee métier te bu ñu daan ay kayit ñu naan état civil lañ fi def ak yooyu dañ daan dem feneen di ko def kon ñoom bu ñu demee ba am lu ci bëgg a def am na leen jublu ndax nanguwuñu mairie bi recevoir ñu ñun. nangu leen ñoom seen bopp nanguñ sax maire bi gis ñu kon leen am na lu nekk ci suuf mais ma ci gën a naqari mooy xoola place bi ni mu toll ñetti place la yoo xam ne ay 2 mètres la ñëw nañ ci peinture kat yi ne leen da leen fiy jëlee ñoom ñuy kaas amuñu fi leen yóbbu nit boo koy jëlee ci bureau danga foo koy yóbbu léegi kon ñu amuñu fi ñu leen yóbbu ñoom ñun xëy na ñun ñooñu ëpp doole ñu ay néew doole la ñu ne ñun ñii la ñuy jël dagg suñuy place ut fuñ ñu dugal roof jël peinture kat yi nga xam ne ñoom ñooñu ëpp fu la dugal leen fii peinture kar yi lañ bëgg ñëw andi leen loolu lañu wax ñoom ñi nga xam ne ñooy ànd ak waa mairie xaw ma dañoo jaay barab bi xaw ma dañu ko jaay sax ndax yow yàgg nañ ko bëgg benn problème lañu am ñoom waa mairie mooy dañoo ñimewul école bi. école bi quoi. ko ñimee woon li wër école bi yëpp dañ ko fiy jëlee tabax ko ndax nekkoon na seen mébét bu yàgg ñu ne dañuy tabax fii jël cantine yi fi nekk dindi ko tabax ko jaay ko benn promoteur la xaw ma mu jaayaat ñu ko mais ñëwuñ école bi parce que école bi dañuy xam ne yëfu état la te ma bu ngeen xoolee ñun fi nekk nii. maire yi amatuñu droit pour samp dara. kon da ne kon maire yi li ñuy def ni loolu du yëfu état tamit. du yëfu état parce que maire yi seen mandat jeex na bu yàgg ba ñun ñaa ngi kaas naan dañoo élection dafa war a dafa war a am Macky Sall nag la ñuy interpréter moom président mu wax ci lii nga xam ne waa maire ji de caaree kaw ñoom ñoo koy def gisuñu maire waaye ay adjoint la ñuy gis ñoom ñooy ñëw fii chaque jour di wax naan dañuy kii fii dañuy jëlee ñii fii loolu mënut a nekk nit mënu am place 2 mètres carrés nga jël nga ñëw bëgg koo dindi mook beneen morom amul doole dañu ko luye ñi ko luye nga xam ne ci la ñuy suturlu yoruñu leen di fay weer muy néew ko bari ci la ñuy dundee ñoom seeni njaboot bu ñu fi jëlee ñoo nag fi indi ab salle de peinture loolu lu mën a nekkee place matul 2 ab oto est-ce que 2 oto xaj na fa kon loolu mënul nekk nañu dimbali ci lii mënut a nekk te duñu ko nangu ànduñu ci tey ànd ci ëllëg fii nii ngay gis nii fi lañ jàngee métier ba toll nii ba am suñu barabu bopp suñu baay moo ko dirigé waaye ñun ñoo ko fiy nekkal ñoo koy teewal ñooy wax kon nañu may jàmm. asalaamaaleykum mbokk internetu dakarnet point com tey lii la leen andiloon ñëwoon marché pënd xool gars lu ñuy ñaxtu parce que dañ ne euh, maire bi dafa bëgg a ñëw fii def fi état civil am ñu ne dañuy jël seen place yi ñuy bañ ñu ne dañuy jëlaat place yoo xam ne matul sax 7 mètres bëgg ko def ñaari place te loolu leen andiloon gis ngañ dugg nañu waxtaan ak gars yi ñoom wax nañ ah, ñoom lan lañu bëgg ci marché bi ba pare dégg naa ñu ne tamit dafa am waa mairie bi dañoo am ñu yabal ñoo xam ne ñoom kenn xamu leen ndax ba léegi ñoom nangu ñoon recevoir pour mairie bi gis leen ñoom daal leen loolu moo lëndëm seen xel li leen leen andiloon tey Dakar ne di leen joxaat dig daje ak feneen incha allah jaajëf du nduy sama cameraman bi tumaani moom it lu mu deful baaxul jaajëf